ako hmm. wallahi wallahi balaa ñu jàmm yokk tuuti allo allo maa ngi lay dégg balaa ñu jàmm joxe san man balaa ñu jàmm maa ngi ci jàpp bu baax Diop euh, ñu ngi leen di nuyu del siyaar bu baax ñu ngi lay ziar ñu ngi leen di del siyaar bu baax a baax waaw ñu ngi ñaan yàlla yàlla yàlla na sutur ba nga baax. amin amin Diop. suñu suñu lii ñu commencé ci jàmm. waaw. yàlla yàlla may nu jàmm ba ñeggale ko. amin amin Diop. ànd ko xalifa bi. Mhm. Eh, tabarakallah kontaan nañu bu baax a baax. jërëjëf Diop. ñu ngi nuyu sëñ Mansour Diagne boobu. jërëjëf. di suñu doom di suñu xarit. Mhm. tabarakallahu dafa am nag ay ñoo xam ne maa ji ñoo joxoon seen alal. Mhm. ñooñu dafa ne woon laa jàllale jàllale jàllale leen ku ci ne mbay jóob ku ñu wax mbay jóob sama doom. benn mhm. cent tonnes ciment. cent tonnes ciment. waaw mbay jóob doomam. sama doom. waaw mbay jóob. cent tonnes ciment Modou Mbène Modou Mbène sama doom. waaw. joxe na cent tonnes ciment. moo du benn cent tonnes. cent waaw ana waaw. xam naa dina xat tey dina après dañ danaa dinañ waxtaan bis ma la ñooñu xam ne dañ seen joxe eh, incha allah taala dañ taxaw na. allah. kon daal ñu ngi sant yàlla bu baax di gërëm yëpp. jërëjëf yal na yàlla guddal fan wi te wéral la te bu baax. nee na cent millions yi mu joxe. Modou Mbène Diop doomam doomam joxe na. 100 tonnes ciment 100 tonnes ciment. Mbaye Diop joxe na 100 moom itam. Mbaye Diop doomam. joxe na 100 moom itam ñaari nit lañu wax. 100 la joxe na moom it 100 tonnes kon bu ñu récapitulé ci El Hadj Dame joxe na 100 millions. doomam Modou Ben Diop joxe na 100 100 tonnes ciment. Mbaye doomam joxe na 100 tonnes ciment. muy 200 tonnes ciment ak 100 millions ci euh, euh, Baye Dame Diop yal na yàlla guddal fanam te sàmm. Serigne maam Cheikh Mbacke. Serigne maam Cheikh Mbacke Serigne maam Cheikh Awa président AIS. waaw président AIS. joxe na deux cent cinquante mille. joxe na cent cinquante mille. macha allah honorable Abdou Mbacke Doli. honorable Abdou Mbacke Doli. joxe na un million. joxe na un million. Doudou Fall. Doudou Fall. ci kër euh, kër Mor Fall. kër na cinquante mille. joxe na cinquante mille. macha allah. ñooñu de xam na ni juma moom nit bërëbu yàlla la rek. waaw maam ñu continuer euh, bi aay bi ci aay bi mujj mooy wa anfiqu mimma razaq